audu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim bokki Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah seen mbokk di seen soppe di papa Abdourahmane Kounta chef religieux fii ci Njaasaan moo yëkkiwaat kàddoom di leen ndokkeel ci weeru koor gi di ñaan yàlla itam yàlla def ko muy sunu njot def ko it muy jàmm ci réew mi euh, ñu ngi jaale itam nag sunu doom ji nga xam ni yàlla dogal na mu faatu fële ci université bu ndar di Mohamed Fallou ñu ngi koy jaale ay bokkam di ko jaale bokki étudiants yi di ko jaale peuple Sénégal yépp ci làmmiñu kunt yépp nag euh, ginnaaw loolu itam ñoo ngi euh, ñaan yàlla euh, yàlla dolli ñu jàmm te itam mu delloosiwaat xel yi ci kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi parce que réew mi mi ngi déraper mi ngi jëm foo xam ni baaxul wax yi tegginuwul ñàkk na sutura ay mag di ko wax ay xale di ko dégg ak jigéen te kenn ku ci nekk amee njaboot loolu nañ ci bàyyi xel may joxañ nag njiitu réew mi di Macky sàll waxoon naa ko ne ko ñetti façon yu conseil yi am day ne ci tànn moom ban la am conseil bu njëkk bi lu bon la bëgg moom la xam moom lay xiirtal nit ki bi ci des moo di koo xam ni boo defee lu baax baax na soo defee lu bon baax na amu ci lu muy wax ñetteelu conseil bi nag mooy ki nga xam ne moo lay digal lu baax soo gëlëmee mu gindi la soo fàttee mu fàttali la soo bëggee def lu bon mu téy sa loxo donte loraangeem moo ci nekk na seet nag ci ñett yooyu ban la am Sénégal nag réewu gor la di réewu teraanga ñu tedd nekk fi askan wi ñoo leen wóolu jox leen réew mi nga la waay nañu xam ni doomu aadama yàlla ku jëkk a teral yéen ñi nga xam ne yéenay force de l'ordre yi nekk ci réew mi comme du ngeen ay jinne du ngeen ay malaka ay doomi aadama yoo xam ni Sénégal leen jur seeni bàjjen seeni ndey seeni tànta seeni rakk seeni jigéen seeni jarbaat ñoom ngeen di jàkkaarloo ci mbedd mi ne leen wóor ni ku ngeen dóor seen bopp ngeen dóor ku ngeen tuur deretam seen bopp ngeen tuur deret bàyyi leen xel ci li nga xam ne moom la leen yàlla dénk te ngeen xam ne kenn ku ci nekk yàlla dana ko laaj ëllëg li mu ko dénk lan la nañu ci bàyyi xel bu baax a baax Sénégal nag réewu jàmm la jàmmit la ñuy ñaan yal na nu yàlla defal jàmm yal na nu yàlla defal naataange defal ñu xiiwal kilifay diine yi maa ngi leen di joxoñ di leen waxaat ni wax da koy wax ba mu jotee te jot na ñoom ñu yëkki seen kàddu ndax fii réew mi jëm ci wax yi nga xam ni mooy jib léegi rafetul baaxul dalul xel nit ki na seet la muy wax lan la jàngkat yi dañu wax ni maqtalu rajul bayna fakkayhi nit la koy rey ci diggante ñaari ngaam yi la nekk te mooy làmmiñ kon nañu segg yu ñu waxee nañu segg kàddu yi tegginal kàddu yi xam fan la kàddu yi war a egg ak fu mu war a jublu su ko defee kàddu yooyu mën a am sutura ñu mën ko woddu jàmm mën a am eh, maa ngi ndokkeel ñëpp nag di balu ñëpp xaq wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuhu